yow yaa xamul li ma wax. d'accord allez-y voilà euh, Kaolack maire yi mënu ko defar. Mm-hmm. maire def ci am pàcc bu ndaw bu mu war a defar. te mm-hmm. compétence bi dañ ko transféré. Mm-hmm. kon jot réew mi euh, waxuma la defar Kaolack rek li Kaolack am li dakaar am dakaar mooy l'exemple li dakaar am Kaolack am ko Ziguinchor am ko fépp am ko ndax man je bi euh, nit laa boo xam ne nii li ma gën a gëm du dëkk du dëkk Dakar parce que su fekkoon damaa gëm dëkk dakaar dëkkoon naa dakaar am ci sama teraanga yëpp manoon naa tey jii ma ins dama inscrire loon dakaar pour vote ma bàyyi ko fa dem Kaolack kon dégg bi ko bàyyi wax moo tax ma dem di wuti loo xam ne bu ma ko yoree danaa mën a def ak Kaolack du c'est pas la première fois mm-hmm. chambre de commerce bi nga xamee ni nii dem naa ba jël union chambre de commerce mais pour ma xam ne ma defar Sénégal lu mu baaxee il faut nga téye Dakar parce que quatre vingt dix pour cent ci quatre vingt pour cent économie Dakar la ñëw damaa bàyyi sama inscription Dakar euh, Kaolack ñëw inscrit Dakar kon dégg wax bi moo tax ma dem ci présidentielle. d'accord waaw. tout à l'heure yow yaa ko tudd muy.